ñëw na gaañi waaj leen bu leen di xaar bam yegg si ngeen di ñëw eewaay xalaat leen toog di xaar ba xëy ñu ni la màggal gi ab semaine rek moo ci des ngay jaaxle na màggal gi ren daa bette fekk na bettewul da ngeen ko fàtte gàcce gënul rëy toog di xaar ba màggal gi des ñeneenti fan nga ñëw du am xel gàcce gënul rëy toog xaar ba màggal gi des ñeneenti fan nga ñëw du am xel muriid bu dëggu bu sëlmalee basiki lay tàmbulee waajal bisub màggal gi màggal dafay farata ci muriidu moo tax bu koy sàggane def mariidu haraam na cib murit bu màggal jubsee mu am yeneen yitte yu doonul bisi ay ca murit màggal gi ñëw na jóg leen toogaay nelaw yi doy na yewu leen ay ca murit màggal gi ñëw na jóg leen toogaayam nelaw yi doy na yeewu leen boo dee nelaw ba benn fanu safaram nga doora waaj foyu la naar bi xoramam yow mi dëkk ak Seex Bamba kaay ma wax la jom bu doon jaay faw ma wut ko jox la buur yàlla may na la nga dëkk Tuuba jéemoo defar lul yàq ñaaw na Tuuba Touba dëkkub sëriñ bi kët boroom da koo ñi yàq bun bawoo ci ñàkk bi dootu jàkk defar gi nag day tàmbalee sa biir kër silwiise du saar ak bu yar saa boo xëyee baleel sa fu beere lu xarti di yëli manoore mbaliit mi bul di di sànni wutal poubelle loo bale dal di tonni tuuba bale na def mbalit ci saako silwisewul day na bi xeeñ xam ngeen ko tuuba bale na def mbalit ci saako silwisewul day na bi xeeñ xam ngeen ko bul taa ndox mbaa fu la neex nga tuur fa sàkkal bërëb lu ne lu jëm fa bul taaji ndox mbaafu la neex nga tuur fa sàkkal bërëb lu ne lu jëm fa dem marse ñëw dajale say waasintoor sumbu ya sax ci mbedd mi dañ koy tuur pootit wareeful di ko tuur ci mbedd ndax sobe saa ku ca jaar du sedd seetal bu ñuy xëyee defar ñee gontu di yàq fi tiit naag jagam du antu yii saa gis ku naan kafeem ba noppi jël kaas ba sànni fee négal ma noppi yii saa gis ku naan kafeem ba noppi jël kaas ba sànni fee négal ma noppi tuuba dëkkub sëriñ bi nan ko war maal def ko ni makka mbaa madina jot na daal makka ak madina ngay damoo ngeen ji mindeef kon war na tuuba tiitaroo man gi mindeef ndamoo sëriñ bi mooy defar dëkkam bi sagub murid yi mooy nu màggal bési bi ndamoo sëriñ bi mooy defar dëkkam bi sagu murid yi mooy nu màggal bés bi yow mi dalal sa gan ñëwal ma wax la gan bul ko laaj lum bëgg loolu ndof la mboolem taraanga ya nga yor ko mu xool ba gis la ko ca neex mu jël ko saa boo yëgee ni gan ñi mar nañoo naan wutal sa ndox mu sedd may leen ko ñu naan saa boo yëgee ni gan ñi mar wutal sa ndox mu sedd may leen ko ñu naan bul xaar ñu lay ñaan bul ni ndax ma may leen ngir ker sa man naa tax ñu ni doy na yewu leen ubbil sa xol bi ab murit day laa gis naa ku dal fii ren déwén dalay ber sa xol bi mooy sa kër lu kër ga ndaw ndaw sab xol bu yaatoo gan ña ñépp xaj fa yaw jiisaa nga gis fi yaari néeg ci kër te kër ga day fees ndax dañuy ñu laa bir jiisaa nga gis fi kër gu yaatu lool it te genn gan du dal fa seen xol yaaxat ñoo ñàkk jom fa yu ñu naar bi xoromam bun gore woon kuy ñëw indaale waayam ñoo ñàkk jom fayuñu naar bi xoromam bun gore woon kuy ñëw ndaale waayam ñi dëkk Tuuba bun di dem jumaaja nan bàyyi gan ñi dem siyaare waaja yaa ngi jumaajaa ngi nga nekk ba màggal ngay xataloo gan ñi danga amul xel yaa ngi jumaa jaa ngi nga néeg ba màggal ngay xataloog gan ñi danga amul xel xam naa xelit bu ma gisan fu koy jaay danaa ko jënd jox gan ñi sant njaay nga ñëw ñu lay berndeel nga toog di seetaan ñéppuy liggéey nga tëdd rekk jaaxaan nga ñëw ñu lay berndeel nga toog di seetaan ñëpp liggéey nga tëdd rekk jaaxaan loo tayyi tayyi mën a xolli pombuteer mbaa nga fejar soble mbaa raxas ay kafteer gan gu ëppal buy ñibbi faw mu laaj paas négal ma puus balaa ñu naa dama siis siisuma soofu ma damaam yéene man màggal gi am wàllu faw ma kon siisu ma soofu ma damaam man màggal gi daa ci am wàllu faw ma kon habibullahi doomi bintallahi ndongal ndogal li werekaanu lahi doomi bintallahi ndongal ndogal li were kaanu leehi juddoo bawal yaroo kajoor dib saa ndogal jànguli daara mës la ab lekool jàngul aruut te xàmmewul bayaanu naxwu taxul muy way borom diiwaanu jàngul aruut te xàmmewul bayaanu naxwu taxul muy way borom diiwaanu géej ga sëriñ Tuuba duyal Muusaa Ka duus yaa ko laal ndenaa nagul ca géej ga géej ga sëriñ Tuuba duyal Muusaa Ka duus yaa ko laal ndenaa géej ga na ngeen ko ñaanal ndax mu am cay xandi kon daañu xam ni werekaan moo mandi ko ñaanal ndax mu am cay xandi kon daañu xam ni werekaan moo mandi amiin yaa rabbal aalamiina subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuun wasalaamun alal mursaliin walhamdulillaahi rabbil aalamiina ndongale Habibou Thiam werekaan werekaan